salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen chaîne YouTube English with Prince jàng àngale ci yoon bu gaaw bu fekkee ne gan nga ci seen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné di aimé bés cloche de notification bi ngir di jot leçon yi ok let's go. yo suñu leçon tey bi dafay wax ci wàllum nuyoo. maanaam naka ngay jàmm sante wala naka ngay nuyowee ci anglais kon leçon bi am na solo lool nanga ko topp ba mu jeex ngir mu jariñ la nuyo ci anglais mooy greetings greetings mooy firi nuyoo booy nuyu nit ki ci anglais wax ko nuyu naa la mu ne la fay naa la naka ngay waxee nuyu naa la mën nga ko wax hello hello mooy firi nuyu naa la boo koy fay nga ne ko hello daat ko koy delloo muy firi fay naa la ba tey nit ki mën nga koo nuyu ne ko hi muy firi nuyu naa la boo koy fay tamit mën nga ko fay ne ko hi fay naa la nga bàyyi xel ne hello day nuyoo hi day nuyoo te ñoom ñaar ñëpp dañuy fayante ay nuyoo yooyu nag mën nga koo nuyoo nit ki ci jamono ju nekk muy suba bëccëg ak guddi waaye bu dee nuyoo yii di bëgg a ñëw nag ku ci nekk dafa am waxtoom anglais day faral di nuyoo ci waxtu suba wi day wax good morning good morning mooy nuyoo ci suba gi dana tolloog asalaamaaleykum waaye ci jamonoy suba àngale yi naka lañuy ñuy nuyoowee ci bëccëg gi dañuy wax good afternoon good afternoon mooy nuyoo day tolloog salaamaaleykum waaye ci jamonoy bëccëg lañ koy nuyoowee beneen bi ni nuyoowee ci ngoon ak ci guddi dangay wax good evening good evening moom tamit day nuyoo nuyoo la boo xam ne ci ngoon lay doon jàpp ba guddi good evening ngay wax beneen bi man boo bëggoon wax nit ki naka nga def dangay wax how are you doing how are you doing mooy naka nga def boo koy fay ne ko maa ngi ci jàmm dangay wax I am doing good I am doing good maa ngi ci jàmm nga bëgg kaa waxaat di jàmm sante danga naan how is your day naka sa journée naka sa bis how is your day mooy naka sa bis boo koy tontu nga ne ko it's good mi ngi neex wala mi ngi baax it's good mi ngi neex mu waxaat la how is the night naka guddi gi nga ne ko it's okay mi ngi neex it's okay mooy mi ngi neex nga waxaat ko ba tey jàmm sante mu ne how about the job how about the job naka liggéey bi how about the job mooy naka liggéey bi nga tontu ko ne ko it's going well it's going well mooy liggéey bi mi ngi dox bu baax beneen bi mu ne long time no see long time no see mooy gëj a gisee long time no see mooy gëj a gisee beneen bi I miss you mooy namm naa la miss you mooy namm naa la boo koy tontu man nga wax I miss you too man tamit namm naa la wala nga ne ko I miss you more maa la vitesse comme ni ko gars yi waxe wala maa la raw mooy I miss you more beneen bi can I know your name ndax mën naa xam sa tur can I know your name ndax mën naa xam sa tur nga ne ko am cold muhammad man la ñuy woowee muhammad mooy maa ngi tudd muhammad mu ne la nice to meet rafetlu naa suñu daje bi wala rafetlu naa suñu xamante gi mu ne ko nice to meet too man tamit rafetlu naa suñu xamante bi après nga thank you mooy jërëjëf thank you mooy jërëjëf bu la ko nit waxeet naka nga koy waxee ñoo ko bokk maanaam de rien da ngay wax you are welcome you are welcome mooy ñoo ko bokk see you later mooy ci kanam li olof naan ñu def noonu see you later mooy ci kanam mu ne ko have a nice day yendul ak jàmm have a nice day mooy yendul ak jàmm kon mbokk yi loolu moo nekkoon suñu leçon tey bi di leen jaajëfal ci topp gi ak bàyyi xel gi waaye di leen jox dig daje ak suñu yeneen ay leçon yu ëpp solo yu gën a dëgëral seen anglais di gaawal seen làkku anglais ñoo ngi leen di ñaan ngeen di abonné di partager ak di aimer